asalaamaaleykum comme ni ma koy waxee saasu ne rek ba tey rek man la jéegu youtube bi maa ngi nuyu sama xarit yi di nuyu sama soppe di nuyu sama am di jàmm yi di nuyu tamit sama am di ay parce que dëgg du neex mënu cee ñàkk il faut nga am ay am di ay di leen nuyu waale yaa ma gën a xam dëgg neexul man yaayu maman na koy duma ay foo ci mim réew sama site bi tamit du ay foo muy RTV référence ñun daal ñu ngi nii ci yoon bi ñu ngi ñëw waaye tey na dafa fël feneen feneen laa fël tey fi ma fël nag mooy fenn muy caaro yi géej tey maa ngi sëtëru Daba Wade Daba Wade laa seet si Daba Wade nag képp ku xam Daba Wade xam ko ci Daba Wade bu daaray kocc Daba Wade nag tey moom la ñëw seet si parce que dañoo dañ koo gëj a gis gëj koo dégg bëgg a xam fan la nekk ak lan lay def ak ci lan lay dox parce que nag bu dara nag émission bi mooy kaay leeral képp koo xamante ne yaa ngi ci kàmb gi rek te gisatul ne rek damay fexe jël sama loxo daal di lay may loxo yor sama loxo ndànk daal di lay génnee daal di lay teg RTV ñu daal lay gis say say am jàmm daal lay gis dëgg du neex xoolal topp ma ñu dem ci biir

ndaxte yéen ñëpp dama leen la woon tey Daba Wade laay seet si tey maa ngi caaroy géej te ba tey nag maa ngi caaroy géej jóge gu ma caaroy géej yi damaa jël waa caaroy géej ak waa ginnaaw raay def leen ay gaayen def leen kol ñàpp tudd ma musa tegg sama loxo parce que nag dëgg du neex ñii ñoo ko yor ah ndeke man yéex naa tukku si waaye poste waaye affaire bi poste la ndekete ah non léegi nag Daba Wade ñëw naa maa ngi ko fekk seen biir kër fas yéene nag waxtaan ak moom fii ci émission bi nga xamante ne nii mooy kaay leeral leeral ba mu leer ma lay wax Daba Wade namm naa la de ci loone maa ngi fi Ndoumbé Dieng maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi seetaan di nuyu monde entier di nuyu ñëpp di nuyu sama ndey di nuyu sama baay bàyyi ma kenn di la wax ne rafetlu naa trop ñëw bi nga ñëw fii seetsi ma kaay leeral moom vraiment émission bu ma neex la émission bu baax la macha allah sant naa di la gërëm di teelu nag say laaj bu baax mën cee tontu loolu dina ma neex. man daal bëgg naa nga taxawee poste boo xamante ne attaquant ngay doon lu ma santé rek nga attaqué ma daal di koy jël comme nee nag lépp lu ma la laaj rek di nga ci tontu bu soobee yàlla day gën a neex day gën a leer parce que tamit nit ñi dañ laa gëj a gis gëj laa dégg xamuñ ci loo nekk ah man ne man daal dafa daal tey dinaa dem xam ci lan la nekk parce que tamit dama la gëj a dégg gëj la gis yow ci lan nga nekk temps yi waa Dieng Saala Dikkee Joor li nga wax dëgg la nekkuma ci dara nag lu nekk rek daaray koccu ñëpp xam ma ci daaray ci ma yàgg ci lool muy ay at yu baree bari mais dafa fekk benn moment boo xam ne suñu directeur Papa Demba njaay dafa am benn pause bu mu nekk lii moo tax rek ñu pause en plus que ma xawoon a jaga di tuuti nag moo taxoon ma xaw a laaxu rek mais dara maa ngi ci terrain bi. ah yaa ngi ci terrain bi waaye man xam nga lu ma jaaxal yow lan moo tax doo def affaire doo doo def requin comme xale jigéen comédien ni ñuy def ah ni ñuy dem di dem di tourner feneen xam nga dem fee tourner ku leen woo ñu dem. dem ci ay répétition dama damay gis arko Pikine foofu nga bokk waaye duma la gis mukk nga dem répétition arko Pikine yow daa yaa ngi toog ci surqu rek toog ci surqu rek doo génn doo dem fenn yow kon daaray Kocc rek nga fas yéene liggéeyal sa àdduna non du question daaray Kocc rek laa fa seen liggéeyal parce que balaa may ñëw daaray Kocc dama jaar Libidoor ci Mali Ndiaye Fara Thiacar waaw foofu laa jaar ba fa dëgg yàlla yàgg fa mu formé ma lépp lu nekk ci man yàlla ak Mali Ndiaye la avant Mali Ndiaye aussi ma jaar Numbelaan ginnaaw raay tur bu ASC door a dem daaray Kocc kon du daaray koc rek ci la basé wu mais daaray koc mooy base bi fekkoon rek xalima la wax rek xawoon na di toog tuuti rek di faju ba wér doo demee man ku ma xam arko banlieue nga ma xamee muy fan ci leyti faal dinaa ko recommencé waat nekkaat ci di laa samay activité comme que yàlla may na ma wér bu baax a baax macha allah sant yàlla dinaa delluwaat si lépp loo xam ne rek mbirum aar la man nekkoon ci yëngu incha rabbi naa ci del yàlla suñu borom dégg ngeen yaayu sayar comme ni mu ko waxee ak yaayu ulay dégg ngeen wax nee bu soobee yàlla dina reprendre dina ñëwaat ar ko kon nag ñu ngi koy xaar ñëpp a ngi koy xaar tàllal nañ ko loxo parce que dafa nekkoon ci kàmb gi yàlla dogal na waa RTV référence tàllal nañ ko loxo fas yéene koo génnee ci rukk bi mu nekk ci kàmb gi mu nekk fas yéene koo teg ci kaw balance bi mu nekk di def lu ko saf ak lu ko neex dëgg du neex léegi nag man xam nga lu ma jaaxal ah yaayu sayer damaa gis daara Kocc dañoo ne tekk rek benn place tekk rek benn place lan mooy problème dama bëgg xam lan la daal lan la problème bi dara li ma la wax rek xam nga daara Kocc dafa am njiit te njiit bi bu amee ci lu mu nekk it faw daaray Kocc na tekki rek ñu xaar suñu njiit bés bu ñu yëngoon xam ne nag daaray Kocc ci yoon dina ñëw incha allah du yàgg dara. man nag man dégguma woon loolu vraiment dégguma woon ne daal seen daaray Kocc njiit bi dafa am ci lu mu nekkoon nag après yooyu man dégguma woon loolu ma daal ma déggu ne dama waat dañ ko fay may jëkkër dafa am jëkkëram jëkkëram moo ko tere ne ko bu duggat ci affaire aar man de loolu laa déggoon wala loolu amul. amiin allahuma amiin yàlla na gémmiñam am barke waaye ndax loolu rek laa ñaan yàlla fi ne toogaay bi dafa yàgg jëkkër rek laa ñaan yàlla te yàlla ma ko yàlla may ci aar bi boobaa ndax man aar rek laa xam waaw kon yow nit ñi liñ doon li ma déggoon ne ne sa jëkkër moo la tere ba génnatoo ci télé yi génnatoo ci rajo dema dematoo fenn kon du dëgg ah xëy dañ maa bëgg a may jëkkër te yëguma ko loolu daf may kon nag gars yi yéen a ko gis xale féroce xale jongo ma sa fere sa pame yàppax mu ngi nii toog ñëw leen ngeen song ko caxabal ko dëgg du neex lan ngeen di xaar gaa yi ma ne xam naa bu ma doon góor du ma mucc ci moom dëgg du neex su ma doon góor du ma mus sa moom wax daba wàdd est que xam nga la laa la bëgg a laaj loo xam ci téléfilm yu bees yi xew léegi lan nga ci xam yow ah téléfilm yi xew léegi ah xam nga àddina day dox te dañ ne àddina buy dox dangay dox ànd ak moom xëy na àddina bi léegi noonu lay doxee kon ni muy doxee rek nañ leen si jëm fekk dox ànd ak moom man daal loolu laa ci xam kon yo daal yaay xoola la arrangé ak la ngay def rek nga def ko ku ne ak na ngay liggéeyee xëy na ñooñu noonu ñuy liggéey noonu lañ bëgg nañ leen ah, kon xam nga instant dañoo toll ci moment boo xamante ne ni danga naan c'est bon wala nga ne c'est pas bon kon yow c'est bon nga bëgg a wax daal ah mais comme que looloo fi am dañu ñaan yàlla avancement nag dama waat woo ci question bi ma la dama ne fi réew mi toll ñii naan dañ naan c'est bon ñii ne c'est pas yow c'est bon nga bëgg wax maanaam affaire bi waa xaaral dangaa bëgg woon léegi aar bi ni muy doxee daal neex na baax na ku daal ni man daal li ma daal jëng saa wax naa ko ku nekk rek ak na na nga ko sentiré daal d'abord nañ ko sentiré ah fin de fin ko sentiré man daal loolu laa xam ku ne na nga sentiré ngay doxalee waaw lan moo tax daba di boycotté yéen laa koy laaj yéen ay fansam yéen ñi ma topp naan ma invité daba invité daba daba dafa boycotté affaire bi de ni aar bi ñuy doxee ndax baax na wala baaxul mu ne ma baax na yow léegi yow lan moo la naqari ci aar bi ah, nga dafa di boo nekkee ci métier bi moom yu bari doo ci mën a dugg mais daal dara na xariw ma ci daal yàlla baax na macha allah. kon kon daba dafa bëgg a wax ne su waxee lu ko metti dañ naan dafa soxor parce que loolu mooy xew ci dëkk bi soo waxee man de aar bi lii neexuma wala série bi ni muy dawee bëgguma ko wala lii wala laa mu ni moo ñu dem moo xam nga lan la dafa nekk ci kàmb gi donc looloo tax muy sikkal ak a ñaawal waaye bu bokkoon ci série bi du ko ñaawal du ko sikkal ah daba loolu nga bëgg a wax. na gën nga ma xam waxu àddina waxu Sénégal. yaa ma ko gën a xam doxalal. lan moo tax nga boycotté kon sama question bi ma la waxee rek demal ragal du jëm guy dëgg du neex daba ah. <laughs> waa noonu baax na tontu nga question bi. kon baax na tontul nga ma ko rek noonu neex na ma lool waaw. léegi dama leen laaj yow daba yow lan nga bëgg lan bëgg léegi wax loo xamante ne nii question yi ma la ni ma la posé yëpp eggaguma ci loolu laalaguma ko te nekk na loo xamante da nga kaa programme woon pour bëgg kaa expliquer pour ñëpp dégg la. Ah. nga ma boo xam ne da xam nga fu may fayoo. yaakaaruma ne instant bi li ma war a wax yëpp yaakaar naa ne posé nga ma question yi répondre naa la ci c'est que c'est que dama fàtte woo benn waaye dangaa nekk ci télévision boo xamante ne muy site boo xamante ne ni mooy RTV RTV référence waaso du ay foo dëgg du neex ah ma bëgg nag lépp loo xamante ne bëggoon nga koo wax rek nga wax ko te bu soobee yàlla ñëpp dinañ ko dégg li nga bëgg a wax wax ko ndax li ma la waxoon sànq rek ragal du jam guy nii ma ndumbe man de su ma sañoon lii nii lay demee lii nii lay demee lii nii lay demee foofa daal di toj ñu daal di jàll ci leneen loolu nga bëgg man kay su ma sañoon da ngay wax ci affaire théâtre ni muy demee fan yi ni muy doxee benn problème man daa pour man ni muy demee neex na série yaa ngi dox artistes yaa ngi liggéey benn côté rek moo ma xaw a jaaxal tuuti mooy léegi artistes yi booy seet ñi nga xam ne théâtre la ñuy def mooy seen métier mhm. liggéeyatuñ ci li ma waxoon nag bëgg a ñëw de. ñi nga xam ne ñooy def métier mannequinat ñoo ñoo ëpp luñ ci liggéey. ak lan sa mbokk journaliste yi comme yow. ñu bari ñoo ñoo nekk ci aar bi léegi. te booy seet bu ñu lay jël sax man daal mënuma comprendre daal maanaam ñi nga xam ne daal moom ñooy def casting war nañoo xoolaat li ñuy def ndax kenn ku ne danga am sa métier. ñu nekk seen métier jàppaleen seen métier xam nga àdduna du ko yaar ba ko mel ni man mii duma jóg naan maa ngi dem defi mannequinat xalaatuma ko. du dëgg mais ku nekk it lay sa wërsëg yàlla nga la koy jox mais daa war nañoo gestu ñi nga xam ne ay artistes lañ te loolu lañ yaakaar loolu mooy seen métier te loolu lañ daal def bañ nekkee xale ba léegi ba màgg ci. waaye daba est-ce que yow yaa ngi dem ci casting yi tamit casting yi ci la bokk est yaa ngi dem ci casting xam nga yéen artistes yu mag yi comédiens yi nga xamante ne yéen yéen ay mag ngeen ah da ngeen a nekk ay ay ñi nga xamante ne maanaam doo leen ay mag waaye yéen ay ñi nga xamante ne ni yéen a téye téye woon aar bi seen loxo téye ko ngëb ko ba mu dëgër suñu wootee casting yéen da ngeen di rëy ndax du ma dem ñëpp xam nañ ma gis nañ ma ci télé bi gis dégg nañ ma ci rajo bi dañ may gis fu ne doo leen nangoo dem léegi bu ñu demee jël ñeneen mannequin yi ak ñeneen ak sama mbokk yi nga xamante ne ñooy ñëw ci casting yi ngeen mer suñu wootee casting yéen tamit da ngeen di dem vers casting ba non non non du n'importe quel na ngay dem bu ñu wootee rek nga lam nit ku nekk des fois dama koy faral di wax maanaam ñi nga xam ne ñooy dem ñooy def casting en général xam nañ kenn ku nekk la nga mën xëy na dañuy yoonal waaw mais tey la ma mën Hmm? yow Dieng Saala mi nga mën ko keneen mën ko kay def kasim xam ne ku ne la mën mais imagine ñoo ne kasim ñëpp buuboon téeméeri di dem na la leen téeméeri yooyu kenn dañ leen sonal nga war a paas war dem war a ñëw da ngay sonn mieux vaut nga toog rek pour lu sa wërsëg nekk daal man fa man di jot man fa laa ko teg man nag damaa faggoon yéen da ngeen di bañ a dem ci ay kasim moo tax ñuy jël ñeneen waaye xaw ma woon ne nii la demee nekkate kon nii la demee ah waa daba lan nga lan mooy sa dernier mot lan nga bëgg ak ñan nga bëgg a gërëm ak ñan bëgg a sant loolu laa lay ko dëgg yàlla maa ngi gërëm ñu télé bi tuddati RTV référence maa ngi leen di gërëm bu baax waaso parce que lii yombul déplacé wu ngir nit koo xam ne dañ ko gëjoon a gis kenn xamoon ci lu mu nekk nga jéem pour nit ñi xam ci lu mu nekk sant naa leen gërëm naa di la gërëm nag yow jëng saala di keeg jor borom jaar dafa dëgg yàlla macha allah di gërëm staff bi topp ci yow yëpp ñu ne xaw ma seen tur mais maa ngi gërëm Pape Ndoye Ndour waale Mbergaan di gërëm aatu waaw waaw loolu neex na di ko gërëm bu baax di gërëm waaw moom bii baa moom yàgg nga di ko wax maa ngi koy gërëm bu baax baax di ko ñaanal yàlla yàlla gën a ci li muy def ci liggéeyam bu loolu weesoo may gërëm sama ndey di gërëm sama baay di ñaanal samay waajur bu baax a baax a baax yàlla yàlla may fan wu gudd may leen wér gu yaram ba ñu fekkee lépp yàlla bu ñu nettal dara ci àddina bu loolu weesoo maa ngi gërëm samay xarit yépp di gërëm samay mbokk di gërëm samay mag di gërëm samay rak di gërëm nag ah koo xam ne nag kenn la ci man muy sama doom baañ nga ci Amérique muy Awa Sylla nga xam ne mu immigré jiwul rek dem rek di wa <laughs> li mu am mu néew bëri mu ngi ay mbokkam ak képp su wërsëgam xaj Awa Sylla la mataa dama koy ñaan yàlla na ko yàlla may am sëñ Fallou lii rek laa koy ñaan ndax te nag sang boo xam ne la maa ko war a jox de waaye wóor na yàlla moo may jox man xaw ma dara lu ma jënd ndax Awa Sylla lu ma bëgg soo ba ngoon jot mi ngi ci borom Amérique maa ngi koy ñaanal yàlla bu loolu weesoo nag may ñaanal sama rakki bopp bi nga xam ne ba dara du dara nag ba tey fàttewu ma ci dara su ma mënee toogaan nii ba mën di wax ginnaaw yàlla yonent bi jëmm joojoo tax ndax dañ ne hmm, ku ku dimbali ma <laughs> bu lëg lekkee olom naka cooy ndax tey mënoon na ma seetaan nag waaye seetaanu ma muy kan bàcci wàdd ñu gën koo xam ci sàmba wàdd jaw faraag ma joxoo laajte jaw ma joxoo yore jaw booli mboj ku ma la ma jege ci am saa yu meree maye jaam muy sama rakki bopp boobu muy séeri faatu faat gàkku waaw ma di ko ñaanal yàlla nag yàlla na ko yàlla may lu ma mën ren yàlla na mën déwén lu ko ëpp ndax seetaanu seetaanuñu nag benn yoon seetaanul ndeyam seetaanul baayam seetaanul ay rakkam seetaanu bépp mbokkam lépp lu mu liggéey suba nga jox mu ne samay samay sama famille ñoo tax may liggéey ñoo tax may sonn te xale bu tuuti la bu ko neexoon tey mu ne am na lu ko war dama koy ñaanal yàlla yàlla nañ ko dégg nañu déggee soorool jumaay Tuubaa jooju sama rek ak képp ku képp koo xam ne rek rakk nga yaa ngi def di xëy di gont di liggéey yàlla na la yàlla may wërsëg boo yoree say waajur maa ngi koy ñaan di ko ñaanal ñëpp bàyyiwu ma kenn ku lim da juum di la santaar rek kontaan naa vraiment invitation bi neex na ma macha allah rajo bi daa xaw ma tele bi maa ngi koy ñaanal ca kaw ca kanam yàlla nañu ko dégg fa ñuy dégg yeneen télé yi maa ngi leen koy ñaan dara jëye sañ Fallou Mbacké ma yaakaar. ca mu ngi noonu daba wàdd wàdd kaasa sama doomu ndey sama seex sama lépp ah ñu bokk suñu ndey bokk suñu baay muy sama nit xam naa ne ku gis ñu toog ñun ñaar ñi da nga naan ne ñu ñaar duñu ñaar kenn lañu dëgg du neex waaye lépp rek. fii lay xewee fii fan fii ci RTV référence sama site bi fi lay xewee man jéegu YouTube bi ñàkk maa seetaan wóorul ñàkk maa wër ci YouTube bi wóorul dama bëgg na ngeen def RTV référence waaso bu ko defee ngeen daal di jàkkaarloog man waaye ko ci jàkkaarloog man ba sa xol neex sa xol sedd ba mel ni wala nga bott da nga naan vingt 77 225 43 quinze daal def tiit tiit rek mu daal di su ne tiit ma daal di ne la allo ma la jéego YouTube bi bu ko defee ma daal di ñëw sa kër ñu daal di toj daal di tasaare daal di partagé daal di def lu nu saf nag def lu nu neex kenn du nu téye dëgg du neex foofu laay tëjee nag ba beneen yoon man jéego YouTube bi man yaayu Mama Nogay dëgg du neex du ma ay foo may nuyu sama président dëgg du neex ma ma tax a mel nii ma mel muy Pape Ndour ah du nuyu aatu aatu ma réeroon nag feeñ na mu ngi nii sama ginnaaw man maa ko kidnappé téye ko nii ci sama loxo kenn dootu jox xoolal ba beneen yoon ñu def neneen ak nii ak naa ak nel